def ñi nga xamante ne ñoo koy safoo ñoo koy bëggee jëm ci wàllum politique donc tey mu nekk meeting international bu fundraising bi euh, bi tur bi naka euh, Seygal Ndoy boo xamante ne ànd nag délégation bi teew teew fi de waaw euh, Seygal président du mouvement ànd defar suñu gox servir Rufisque membre de la coalition Diomaye président bokk tey ci li nga xamante ne ni mooy coalition bi nga xamante ne mooy dem assemblée nationale pour gunge Pastef. tey ñu gis askan bu bëri bi nga xam te ne teew na fii ci Dakar Arena ngir wuy si woote bi nga xam te ne leader Pastef moom moo ko daal di woote di Ousmane Sonko ndax xaaroon nga dëgg-dëgg mbooloo mu toll nii teew waaye itam noo si jàngat. waaw euh, ñun luñ suñ liñ si jàngat mooy euh, bëgg-bëgg ak euh, Sénégalais yi fi ñu teg Sénégal. ak sénégalais yi tamit fi ñu teg le président Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom la ci woote la jub la jubal et la jubbanti loolu moo tax sénégalais yi répondre favorablement tey jii ci bés bi pour mën a préparer sunu euh, campagne yi nga xamante ne les jours à venir la di préparer élection bi nga xamante ne le 17 novembre la 2024 incha allah. waaye incha allahu rabbi dinañ jox euh, le président Ousmane Sonko ak coalition bi ñu àndal yëpp Pastef une majorité parlementaire confortable à 90 pour cent jërëjëf. appel à levée de fonds bi nga xamante ne def nañ ko en tant que parti au au pouvoir loolu ndax xaaroon nga ko ci ñoo xamante ne dañoo tàmmoon di gis parti xam nga dafa am solo li tax mu am solo tey parce léegi wane ne kenn du jël xaalis réew mi di ko pasare ci ay campagne électorale léegi ñi nga xamante ne nii ñoo bëgg réew mi bëgg Sénégal ànd ci ci ak fayda ñooy mobiliser seen i pour mën a jël seen i fonds dem campagne électorale pour mën a pour mën a def seen campagne man maa ngi nii dama boo dama jël levée de fonds carte d'or laa jël bii laa jël cent mille francs laa jël pour mu war na man damay participer li nga xamante ne mooy Sénégal jëm kanam Sénégal nag daf ñu jaral lu ne moo tax tey jii ñu bokk ci projet bi nga xamante ne moom la président Ousmane Sonko woote pour ñu ànd ak moom liggéey Sénégal merci beaucoup merci donc gis ngeen réaction yi dafay continuer euh, fi nga xam te moo di Dakar Arena jëm ci teewaay yi nga xam te ñoo di ay leader yu bàyyee ko ci gox yi fasantikoo fii ci Ndakaaru ak ci biir Sénégal ngir ñëw teew ci woote bi nga xamante ne euh, Ousmane Sonko président Pastef def na ko. ñëw teew fi nga xam te moo di ci jam ñaajo noo gisee d'abord mobilisation bi nga xam ne euh, moo fi am. déjà c'est une très forte mobilisation. Et euh, moi je le DG du CROUS de Bambey et euh, militant Donc aujourd'hui, tout Fouta est mobilisé, tout Matam est mobilisé pour répondre à cet appel, à cet appel de Seydina Ousmane Sonko, à cet appel du président de la République Bassirou Diomaye Faye, pour qu'on puisse de façon massive rassembler des fonds pour aller au niveau de la campagne électorale. Le message que j'aimerais lancer au, à l'endroit des populations, c'est de l'importance de cette élection. Cette élection regorge d'une importance capitale. Pourquoi Parce que nous le président de la République, mais il faudrait lui donner les pouvoirs pour pouvoir gouverner. Nous avons élu un président de la République, il faut lui donner le pouvoir quand même de diligenter certaines situations. Nous avons trouvé la situation du pays à plat, il y a eu des tueries, il y a eu des morts, il y a eu des crimes économiques. C'est seulement en ayant cette majorité à l'Assemblée nationale que le, gouvernement pourra quand même régler pas mal de difficultés et comment la réduction des comptes mais aussi tout ce qu'on met de près ou de loin qu'on puisse quand même euh, le déçoir quand même leur euh, immunité parlementaire. Donc je lance un véritable appel au niveau de la population que les gens puissent venir nañu ñëw en des déjà déjà présent contribuer di joxe ay fonds mais élections yi am na importance bu bari bari bari bari bari bari euh, impo élection bi day permettre président de la république day permettre gouvernement bi pour ñu mën a doxal demandé encore le projet bind nañu projet bi population bi voté na pour projet bi et actuellement il s'agit de l'application l'applicabilité du projet qu'est-ce qui va permettre à ce gouvernement d'appliquer euh, comme euh, on, on l'avait dit lors de la campagne les réalisations c'est d'avoir une majorité une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a compris, le peuple sénégalais a compris. Regardez, il n'y a même pas là où poser le, pied pour entrer au niveau donc, de Dakar Arena. Leneen levée de fonds bi ñu en tant que parti au pouvoir ndax réellement yaa ngi ko doon venant euh, des dirigeants yi nga xam ne ñoo tout en sachant que am tous les moyens qu'il leur faut pour battre que nous, que soit nous les DG, que nous soient les ministres, etc., on doit toujours continuer dans cette philosophie de bien faire. Et évidemment, on, attendait ce jour-là. On attendait ce jour qu'il y ait des levées du fonds pour que la population elle-même qui a porté le projet jusqu'ici puisse participer et contribuer, puisse participer et contribuer à ces levées de fonds. Donc c'est juste pour vous dire, le parti PASSEF est un parti de peuple. Le parti PASSEF est au-delà Et c'est un parti populaire, comme dans le passé des partis populaires qui ont eu à conduire des luttes pour l'indépendance. Aujourd'hui, le peuple a dit non, nous n'allons pas vous laisser, vous les élites, seuls contribuer dans ce projet, contribuer dans cette campagne-là. Nous aussi, nous allons apporter notre euh, contribution dans la bonne marche du, du pays. Nous allons apporter notre contribution dans cette quête vers l'indépendance, dans cette quête vers la souveraineté. Et c'est ce que la population aujourd'hui veut exprimer avec le président Ousmane Sonko, avec le choix à faire par rapport aux différentes sorties de l'opposition Bon, vous savez, euh, c'est vous, peut-être les journalistes, avec beaucoup de respect que je vous dois, c'est vous qui donnez de l'importance à cette euh, génération peut-être de Nenbahal qui cherche peut-être à se hisser avec nous. Mais euh, ils, ils, ne font même pas de poids par rapport à nous. Nous, on n'a aucun commentaire à ce, à, encore, envers l'opposition. S'ils si ont des initiatives allant dans le sens d'amener dans des débats de programmes d'idées sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social et, sur le plan de l'éducation aussi. Donc c'est sur cette question technique qu'on attend d'eux, mais pas parce que quelque part on vend à 150 nen bahal ou autre chose que c'est pas ces gens-là qui vont nous perdre du temps très franchement ce n'est même pas d'actualité vous, vous de Matam je suis de Matam il y a des gens qui sont derrière peut-être politiser cette affaire-là vous savez je viens de Matam il y a même pas une semaine pour, partir assister la population je suis allé à Matam avec mes parents qui sont des sinistrés donc il y a le fleuve qui a ce qu'on appelle waaw ndox bii dafa yëg et effectivement c'est de Bakel jusqu'à Saint-Louis et quand on a entendu ça quand j'étais là-bas il y a une semaine pour assister la population on n'a attendu aucune autorité parce que nous sommes de la localité pour aller reconforter la population ñu ngi wax population Fouta ñu ngi wax population Matam Massa pour ñu dindi lii parce que pendant très longtemps pendant très douze ans on nous a dit ne ko bandum bandiraɓe sehil mi me permettrez mi Ouais. Ouais, non, le, il, a, il n'a jamais eu de titre foncier. il n'a jamais eu de titre foncier au niveau de Matam, c'est qu'il faut comprendre peut-être la sociologie de, du Fouta et de Matam. Aujourd'hui, depuis très longtemps, nous qui sommes dans le PASSEF, nous avons essayé de mettre tous les moyens pour qu'on PASSEF puisse gagner au niveau du Fouta. Et vous allez voir, Inch'Allah, les élections qui, euh, euh, à l'origine, que PASSEF va gagner au niveau, au, niveau, au niveau du Fouta, au niveau de Matam. Il n'a jamais existé un titre foncier. qui faisait quand même peut-être des bourrages d'urnes ou bien des transferts d'électeurs de la Mauritanie. Et là, on l'a stoppé, on l'a arrêté dès les élections passées. Et ça va continuer. Inch'Allah, PASSEF va gagner ces élections. Vous me permettrez quand même euh, de lancer juste un appel en poulard à mes parents Matam Fouta par rapport à ces inondations. Puis de huit bandiraɓe ɓe tan min jii tampere min ɓooyaani ko min ngumimi Matam yaade wadde massa population Euh, maayo ngo naati gouvernement o ene watti hen haqqille mum ɗiɗo o ngaji paaɗi won jii pendant 12 ans ene wi enen neɗɗo ko bandum funti men haydara ala ko waɗani waɗi fouta haydara ala ko woni fouta hande galleji fof naati fof boni ko haalis milliard uji ponnoɗo tottede miskineɓe ponnoɗo tottede fuutankoɓe on jii ko caɗele watti ɗum ɗum noon hande pine pindi nen Eh, eh, pilten hannde yimɓe gotan hannde yimɓe gotan hannde eh, premier ministre ousmane sonko président de la république gila fouta ne yaara yesso gila fouta ne ɓamto sukaɓe fouta jaña ligguey masalam mo mbatta lancé euh, euh, population fouta o ganduɗa o waɗi politicien wonɓe euh, caggal on ɗon affaire gam waɗ politisé on ɗon affaire on ɗon situation non ɗum ɗum ko pulaar wiyata ko rek ɓe ngala haaju par que so maayo naati wayri waɗi hannde duuɓi duuɓi capanɗe joyyi ko yimɓe keɓani ilimeji mbaɗi ni henna mbiyaɓe massa coono hande yotoɓe ketto ɓeɗon aroɓe ɗen bonna hande premier ministre président de la république hande gaddi ballal mumen pour yidde toppitade e wadde